maa ngi sàkku ci képp koo xamante ni sa bëgg gii ci sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul am na fu mu toll ci yow xale bii ma uuf mi ngi tudd soxna jaar yët soxna jaara Buso way juram tudde na ko tur turu sell tudde na ko tur woo xamante ni turu màgg la képp koo xamante ni bëgg sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul mi ngi ci sa xol maa ngi ñaan ci kattanu yàlla ak mbaaxam dégg ngeen yaayam nee na soxna jaara dafa amee asma ba ñu leen bindalee ordonnance su euh, ñaata la bi cinq mille cinq cent ba léegi jënduñu ko te bi boobu ba léegi mi ngi sëqat rek sëqat yu mettee métti ana ana soxna jaara yi ci Sénégal ana soxna jaara yi ci biir réew mi ana soxna jaara yi ci bitim réew man gëm naa ni yéen rek mën ngeen faj xale bi gëm naa ni yéen rek mën ngeen taxawu xale bi képp kuy soxna jaara ci Sénégal mbaa nga nekk ci àdduna ñaan naa la nga ñëw wallu soxna jaara mi nga xamante ni bi mu ganesee àdduna ak léegi yàggul soxna jaara na nga def soxna jaara nee na li muy wax nag ci xelam la koy waxee ma dégg ko ci sama xol di leen ko jottali ci sama kàllaama gu sell gii maam jaara nee na nee mën ta wax sax ndax su xoolee yaayam xool maamam xool maamam bu góor xool papam xam ne tanewuñ ko mu jàpp ni dundam gii est-ce que ñëwul fekk fi ay coono mam jaara ne sa yaay rek laa bëgg mu wér dimbali leen sama yaay mu wér ba mën maa yor ngir ma màgg mam jaara ne dimbali leen sama yaay mu wér ngeen jàppale ma manit ma wér maam jaara bu so nee képp kuy soppee maam jaara nee na képp kum bokkal tur moom maam jaara nee na nga ñëw dimbali ko ci yaayam dimbali ko ci maamam jile maam jaara ne képp ku ko defal loolu dootu la fàtte ba keroog muy màgg maam jaara ne maam jaara ne na ko ñëpp jàppale te yàlla tax jërëjëf maam jaara waxal naa la li ma yónni dégg nga bu leen ma weddi nag loolu la wax dikkal kër maaram soxna jaara mi war na tax jigéen nangul sëriñam boole cem du kat ak xel mu di di yaaram soxna jaara mi war na tax jigéen sanal góoram yekk say takkaay di ko jox di mu di di yaaram ëllëg yomal xiyaamatul akbaru yàlla gërëm sa dund képp ku dimbali ci ab dund képp ku dimbali ci faj xale bii képp dimbali soxna jaara man su ma yeggee ci soxna jaara rek sama yaram day daw ndax xam naa ni képp kuy maam jaara mbasa yaay tudd maam jaara mbaa nga am doom ju tudd maam jaara mbaa nga am rakk ju tudd maam jaara gëm naa ni di nga jàppale soxna jaariyatullah képp ku ko jàppale yàlla na la yàlla fay jërë ngeen jëf